xam Sénégal Buzz waaye feggoog xam si xam ñoom ñooy waa sbt media point com ma leen di wax ne la abonné leen ngeen bës seen touche cloche notification bu ko defee vidéo yi xam ne Sénégal Buzz mi koy dugal ah, ngeen mën ko am bu ko defee lépp loo xam ne information la jëm ci màggal gi ak yoo xam actualité internationale bu ko defee ngeen mën ko am sëriñ bi Thioune ñu lay nuyu maa ngi leen di fay di nuyu sunu mbokki taalibe yi di siyaare Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi téwér maa gi siyaare Serigne Cheikh Jëmm Fall xalifab sunu maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal mu yàgg fi téwér maa ngi siyaare Serigne Cheikh Mbacké mu Serigne saaliw ak njabootug Serigne saaliw gi di leen ñaanal nu yàgg fi te wér waaye maa ngi siyaare Serigne Saliou ndigal Thioune di xalifab Serigne Béthio Thioune di ko ñaanal sunu sang bi mu yàgg fi lool te ànd ko wér. mu mel ne que ren adduna yëpp euh, activités yi nga xam ne moo amoon ci adduna bi yëpp dafa taxaw. corona bi euh, daal di kor ñëpp màggal Tuubaa ñëw euh, sëñ Muntaxa woote ko ban yëg-yëg nga am. bi ma am kawe na yëg-yëg bi ñu am yegg na sunu xol. ndax ñun day ay murit lañu te it sëriñ Muntaxa Mbàkke mooy sëriñ Tuubaa mooy sunub xalifa ab murit day ndigal képp mooy li ko war sëriñ Muntaxa Mbàkke bu ne woon rendi leen seen bopp si ndigal dees nañu rendi sunu bopp jébbal ko ko bu ne woon bëri ko deret laa soxla dees na ko ko jox ngir kat day Serigne Touba si ñun Serigne Mountakha ñun ndigalam képp la ñuy déglu ndigalam nag bu xasee bu ñu doon ñëw Touba di daanoo ko jóg di dee du tere ñu ñëw Touba ngir kat xam nañ ni bu ñu ñëwee Touba si ndigal rek la ko defee lu ñu si mën a dal ak cant la si ñun ngir jëmmi Serigne Saliou mbokk yi nga xam ne yéen a ngi suivre Sénégal Buzz 221 ak fi nga xam ne moo di sbt média point com ma leen di wax ne continué leen ngeen abonné ba seen tous cloche notification ku ñu jàkkaaroon miin ngeen ko ci internet bi euh, muy Serigne Saliou Thioune Darou Salaam tey ñu ngi fii këram fekk fi fa seeni waxtaan moom mais Serigne bi euh, tey corona bi nga xam ne si tey moo tax euh, woote ko sëñ bi loolu loolu loolu noonu ko mën a waxee ko mën a mooy li wax ndigal ngir mesure barrière yi te loolu ñu ngi koy def ndax ñun ndigal képp la ñuy déglu Serigne Mountakha Mbacké bu nu joxee ndigal dañu koy jëfee nam ko bëgg rek la ñu koy defe waaye nag korona dëgg la waaye Serigne Touba lépp ki walanteeru ñëw Touba màggal si màggal gi nga xam ne Serigne Touba ko woote ndax moo bu bis bi ñëwatee na ngeen ma santale yàlla sa borom li ko dagge ginaar ba sa gileem kuy murit li la war mooy ñëw Touba ndax kat corona boo toogee Ndakaaru mën na la faa dal foo mën a dem bu dogale yàlla ya tabbee kenn mënu la fee muccal kon nag wax dëgg yàlla ñun corona du nu téye ñun si ndigalu Serigne Touba la ñuy dox buñ doon dox yi du ñu rey du tere ñu ñëw ndax ndigal képp la ñuy wéyee mu mel am na kilifa yu bëri yoo xamante ni bi nga xamante ni sëriñ bi woote na màgg ki ñoom dañ ñoom duñ dem ko rara day ñeewuma leen barke Serigne Saliou Mbacké képp koo xam ne nee nga kilifa ga déedéet duñu kilifa ndax ah Serigne Touba woote nga ne du ma dem ndax corona bi moo yow corona bu ko yàlla dogalee sa jëmm ji fa nga ne te ñëwoo Touba da koy am barke Serigne Saliou Mbacké fu ko yàlla ak foo mën a ne te suñu borom tudd ko si yow faaw nga am ko kon bu nu nee ñëw Touba ndax corona corona bi ah man day wax dëgg yàlla ñun ñii nga xam ne ay murit sadeex la ñu ay murit la ñu Serigne Saliou yar nu gërëm nu boole noog Cheikh Béthio nu ànd ak moom nu ànd ak moom mu dimbali ñu teral nu sagal nu sutural nu ba fu nu taxaw ñu ne ñu cantaakun yi fu nu taxaw ñuy gis sëñ beccu si ñun fu ñu taxaw nu ni Serigne Touba muccal nañu wasalaam. la ak ñi nga xam ne moom mooy sbtmedia.com mais Serigne ñu génn ci loolu ñëw fi nga xam ne moom mooy cant gi ñu gis ne ren euh, lim bi nga xam ne nii euh, Serigne Bethio bi fi nekkee euh, daana ko def ci nag yi ñu gis ne Serigne Saliou bi mu fi ñëwee bii mooy ñaareelu màggalam mais affaire bi dafa yokk lan mooy secret ca taakul ah eh, ndigalay lépp Serigne Saliou ndigal billahi wallahi wa taala barke Serigne Saliou Mbacké bu doon màggale benn nag rek am na ndam Serigne Touba yow mënoo jël sa lépp jox Serigne Touba di ko diglu guddeeg bëccëg mu samp la def si yow li mu def si yow muy màggaluk Serigne Touba gi dikk te waay jëf na nga xam ni Serigne Touba Mbakke la ko jébbal ki nga xam ne nag sa bisub bopp mooy defar lépp sàkkantuma bisam màggalug Serigne Touba gii Serigne Saliou ndigal nii mu ko jëfee na wa daan jëfee nu raw la koy ndax Serigne Touba amul tànk ginnaaw Serigne Saliou ndigal baax na yaru na tabe na bëgg na ñëpp fonk na ñëpp. mboolem kërug diine sëñ Saal jàpp na la bëgg na la fonk na la taalibey baayam yi bëgg na leen fonk na leen ndax ñun day ndam rek la ñuy wër ñun dañ day murit keroog bi ko Serigne Saliou sëñ Seex Mbàkke mu Serigne Saliou jox ko ngir mu sëkk biir kër Serigne gi boobee la ndam la fés ñu ne déet ñuy bi jumaay Serigne Saliou ji Serigne Saliou ndigal sëñ Seex jox ko ngir mu togg togg ya yóbbu ko si jumaa ja ma ne boobee la ñu am ndam bu yeboo ñu xool ko bu baax te te ko te te te tëf koo xef nañu ko tële xef ndax wóor na ma ni Serigne Touba samp na ko te samp Serigne Touba du daalu mukk sa kaw sa kanam ndam rek lay am Serigne Touba nag tayam ju ne day gàcceel démbam ba tax na tayam ji day gàccel na démbam ndax sëñ Saal si yoon rek la tegu nag yi bari na condiment yi bari na xéewal yi bari na sant nañ sëriñ bi moom day rëccu wuñu si boole gii ñu sëñ becco booleeg moom. sànq mu génn si ngoon euh, fi nga xam si fi la doon defee condiment yi wax ka ni euh, bu màggalee ba ci ëllëg sa ci ngoon incha allah fa fas yéene teg première pierre euh, kër sëriñ becco bi ndax nga jàngatee loolu. xanaa lu ko rafetlu ko di bëgg gaynde gaynde rek la mën doon bilaay gaynde du jur moos gaynde ah non gaynde <laughs> gaynde du jur moos sëñ Béthio fitam ba sëñ Béthio mbaaxam ba sëñ Béthio tabeem ga sëñ Béthio yërmandeem ja sëñ Béthio yàkkamti ndigal muy koo xam ne ku yàkkamti woon ndigal la damane ne bu fi bàyyee taawam bii mu mat ko lool duy ko def si moom barke Serigne Saliou Mbacké lu mu diir Serigne Touba defal ko si ndam sëñ Sall du duur dara muy échec ndax kat ku Serigne Touba teg loxo ndam rek ngay am ku yebu di la xool te teel a xef ndax Serigne Saliou Mbacké defar na ko. daaw ñu màggal euh, fii nga xam si moom mooy jantul ma fa màggal gu am solo daaw am ñeneen ñoo xam si nit euh, cant gi xaaj nekk ñaar ñenn ñi ñoom it màggal fi nga xam ne moom mooy ngaabu màggal gu am solo coow li bëri euh, que waa ngaabu lin màggal daaw kenn musu koo gis ren am ñu ne sax yéen a yéen a tax ñu ne buñ màggalee ngaabu deuxièmement mbuur ga nga xam ne fa la woote woon mbooloo mu fekk fa ngeen dox ba li nga xam si ni moom mooy autorité ne ko doo màggalee ndax nga mën a jàngatee loolu waaw xam nga man daa am fu ma yem ni ma leen ko waxee woon rek man du fépp lay dugg sunu boor di Serigne Saliou Ndigal sañ naa faa xuus sañ naa faa waxtaan waaye la nga xam ne xëy na sama yoon nekku sa dama bëggut a tooñ du ma sa dugg li ma mën a dugg daal mooy Serigne Saliou Ndigal jàmbaari sëñ Béthio ji loo ma si laaj ma tontu la sa waaye la jëm sa wàllagee loo ma sa laaj awma xam-xam ba ngir mën la saa tontu. mais lépp su boo gisee ma laaj la boo gisee ma laaj la parce que ñoom it Serigne Béthio la ñuy liggéeyal te ku la xam Serigne Béthio ku la xool sax sa maam ku la xool sa jëmm sax Serigne Béthio rek lay gis donc loolu moo tax ñu laaj ko. sëñ Béthio ngay gis yàllaa ko dogal yàllaa dogal muy sunu waajur mu dimbalil ñu boppam waaye na ma daan waxe rek ni lay waxe man du ma tooñ te du ma wax loo xam ne leer na ma ni. ah ku ko dégg na cam déedéet Serigne Saliou Mbacke ma noonu xam naa nag lu bari am naa lu ma xam waaye dafa am fu ma yem am na loo xam ne mënumaa jéggi barrière bi nii rek la demee. daaw dama la jël nga ne nga ne rafet nga njortu maam àndaat bi am est-ce que fi moment bi toll nii sentir nga ni que soxna Aida mën naa mën naa maanaam dellu ginnaaw ñëw ànd ak ki nga xam ne moom lu ne mën naa am ndax Serigne Saliou mbakke moo ne seex Béthio doo yàqu doo yàqule te kenn mënu laa yàqal lu ne lu ne lu ne mën naa am lu ne mën naa am Serigne Touba moo yorug ñoñom lu ne lu ne Serigne Touba mën naa defi dogal moo am du ma ne doo am. du ma ne du am waaye daal li ma mën a wax mooy wóor na ma ni Serigne Touba daal mën naa def fi dogal ba loolee am. tey boo amoon message boo koy lancé. bu ma amee li ma koy lancé mooy nañu ànd ndax njaboot gi njaboot gi njabootug sëñ Béthio lañu nanu ànd liggéeyal Serigne dañ na ñaara man kenn ñett du bëre mhm. sëñ Sall ku dem mu dem ku demul mu dem moom ma nga yoon kon limay limay laase cantaakun yi mooy nañu ànd ak sëñ Saal mooy taaw sëñ Bécco muy taaw boo xam ne ku ko gis bëgg ko ku ko gis fonk ko ñëpp koy tiitaroo ki nii tiitaroo nag ah faaw nu ñu ànd moom kon maa ngi ñaan maa ngi woo cantaakun yëpp. no ànd ak sëñ Saal ndax kat njaboot gi njaboot gi njaboot gi njaboot gi njabootug sëñ Béthio rek la ñu. noo gisee Sénégal Buzz 221. ah Sénégal Buzz 221 ñooñu da yàlla dogal ñii sama xarit jël nañu ma géeje way sama cant gi bi muy jub si la ñu ñëw sama kër géeje way jël ma ma waaw man nag ah, daa am nu ma Serigne Saliou yare man Serigne Saliou ma yar fukki at ak juróom-ñett man la sëñ Béthio njëkk a ŋàbb jox Serigne Saliou jamonoy sëñ Abdou laat Serigne Saliou yar ma bëgg ma ngir mel man képp la ko sëñ Béthio joxoon sa jooja jamono loolaa loon Serigne Saliou bëgg ma. booba juróom-ñaari at la am Serigne Saliou daawul jël juróom-ñaari at fukki at jëm kaw la daan jël waaye bëgg gi bëgg sëñ Béthio loolaa loon Serigne Saliou Mbacké nagu baa jël Serigne Saliou yar ma gërëm ngeen baax lool bëgg ma Moussa bëgg ma mbëggeel goo xam ne daaw def ngeen ko ren defaat ngeen ko li may ñaan si barkeb sëriñ Saliou Mbacke ñu def ko ay déwéni déwén si barkeb Serigne Touba man nag bu may xuus si sëriñ bi dama dul nekkati waaw beneen nit lay doon lu ma sonn sonn bu ma xuusee Serigne bi moo may may force ak kattan ak xam-xam bu ma ko waxe ba ñëpp mën see jariñu loolu Serigne Saliou wasalaam. jërëjëf mi ngi noon Serigne Saliou euh, Thioune Daaru Salaam moom la ñu loon euh, ci SBT Média ak fi nga xam ne moom mooy Sénégal ba 221 di jaajëfal Thiam bu baax a baax Thiam action di ko jaajëfal baax a baax xartu Iranda waaye di jaajëfal hélas ah. <laughs> ah mi ngi noonu waaw mi ngi. <laughs> ah waa Maas. déggaloo jëm ñett yaa yeey bu la neexee def ñeent lu fi waay man dara wasalaam.